ngi lay ñaan nga abonné nii rek nga koy defee eh? mooy noonu ngay seen noonu auzu billah bismillah salaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad ibn abdillah eh, dog bi dafay jàngale sunnay eh, julli wala kon sunnay jàpp kon waaw ndax faratay jàpp la la waxoon kon tey muy ñëw ci sunnay jàpp sunnay jàpp nag juróom-ñett la dana la ko limal benn par benn mune ne faslun li ab teqalale fi sunna ci sunna ya summa sunna nu hootoop ay sunnam sunnaam ata dik na samaaniya di juróom ñett nee na japp kat niñ ko wagne jurom ñetti sunna la denga euh as lu ko has ya dan loxo lil hi ba ci tik jare ya, kun na nga nek waaxee di aji wat ba ci njëkk moy raxas loxo ba ca tikku ya maanaam fa ngay takk jara bu dee jigéen fa ngay takk montor bu dee góor wala muy jigéen wala fa ngay takki lam foofu wax jara foofu booy tàmbali mooy booy tàmbali rek moo tax mu ne suru suruwaay ka fas ak tàmbali wala kan ak donte nekk nañ maan ñoom ñaar ñëpp taahira tey ni di ñaar way la faq na nga xeetu man ka nga xam ne jap. na xil man xam-xam boy tàmbali jàpp xam nga fa ngay tàmbalee mooy raxas say loxo ba ci tukki rahas ñetti yoon raxas googee ngay raxas te sa loxo yi booy tàmbali nee na moom sunna la waaw mat mit na nga galaxndiku galaxndiku moom it sunna la mooy dugal ndox mi ci sa gimiñ yëngal ko yàbbiwaat ko kadaanik noonu la istansiix na nga saraxndiku saraxndiku mooy dugal ndox mi ci sa biir bakkan moom it sunna la kadaanik noonu la istansiran istansir na nga fiiru fiiru mooy gannaaw boo dugalee ndox mi ci sa biir bakkan muy sarandiku nga génneewaat ko mu génn mu loolu mooy fiiru kon dugal ndox mi ci sa bakkan mooy saraxndiku bàyyiwaat ko mu génn mooy fiiru ñoom ñaar ñëpp bu ne ci sunna la warat na nga delloo masan ak masaa la si nga ñeel sa bopp delloo masaa bopp xam nga masaa bopp dafa am dem ale ak retour muy dikk dem ba moom neewoon nañ la farata la waaye retour ba muy dikkaat ba ba fa nga tàmbalee woon ah, nee na loolu sunna la Mhm. wax dëgg na nga lim na nga lim masal usni masa nopp nee na it masaa nopp waaw ñaari nopp yi nga masa leen moom it nee na sunna la wajad wajadit na nga yeesal almaa ndox ma lil usna ni ñeel ñaari nopp yi maxan boole seen nee na it boo masaawee bopp ba ba pare bay masaa nopp ya nga dem tooyalaat sa ñaari baaraam yi ngay masaawe nopp ya nee na loolu it sunna la xam nga dafa am ñoo xam ne buñ masaawee bopp fa la ñuy teggee masaawaale nopp ñu laalaat satla ga ñu jàppoo wala ndox ma ñu jàppoo lañ asoon masaa ca bopp ca la ñuy masaawaale nopp nee na loolu nag ku ko def bàyyi nga sunna boo masaawee bopp ba pare da dem nga tooyalaat sa ñaari baaraam yi baaraamu euh, sànnikaay bi ak baaraamu euh, sànnikaay bi mooy baaraam bi ngay joxe ñi rek sa baaraamu dëy mooy baaraam bu mbag bi ñoom ñaar ngay tooyalaat tooyalaat googu nga leen di tooyalaat pour masaa nopp ya moom it nee na sunna la moom la tudde yeesal ndox mi waratti ban na nga toftale alfarda farata yi te kun na nga nekk muttaben dee ci topp nee na toftale farata yi moom it nee na la waaw ba nga raxasee xar kanam xam nga loxo ca topp mooy loxo ba ca concee nga teg ko ca ba nga la ba nga ba nga xar kanam moo jiitu raxas loxo raxas loxo moo jiitu masa bopp masa bopp moo jiitu raxas tànk maanaam noonu farata yi toftaloo jàngaloon na la farata yi nga toftalee ko noonu moom it sunna la sunna yaangi ngi noonu kon juróom-ñetti sunna la jàpp am ban ak ban raxas say loxo booy tàmbali galax ndiku fiiru ak sarax ndiku dégg nga ak massa sa bopp mooy dem dellu si ba dem ba moom farata la loolu it nga bàyyi ko xel ak massa say nopp waaw ak yeesal ndox ma booy massa nopp ya ak toftale farata ya waaw ndax am nag ñu koy lim muy juróom-ñaar ñi koy lim muy juróom-ñaar mooy yeesal ndox mi ngay yeesalaat ndox ma pour massa say nopp la am ñoo xam ne duñ ko limaale moo tax ñoom ñuy lim am ñuy lim juróom-ñaar waaw waaye moom ni mu limee la ndax yeesal ndox moom yi ko limaale nekk juróom-ñetti sunna mhm. waaw. léegi nag day wax ci ku fàtte ab farata ci jàpp. wala ab diggante lan moo cay atteya waaye sunna ya moom pare na ci wa man nasiya ku fàtte fardan farata minal anda yi ci cër ya fal xukmu kon atte ba fi dalika ci loolee xukmaan yi ñaari atte la yaa na nga wattu nee na koo xam ne dafa am ba muy jàpp dafa am ciru farata boo xam ne daf ko fàtte man daal daf ko waroon a raxas fàtte koo raxas jël ko nee na kon loolu day am ñaari àtte loolu lan moo cay àtte ba mu ne kon léegi day am ñaari àtte mu ne fa in yëkkun bu dee dafa nekk xat tadakkaraa di ko fàttaliku bil xur bi cig jege faa la woon na ko def mahal si ànd ak la nga xam ne jaraa daw na baax du ci gannaaw neena bu dee ne cër boobee daf koo fàttaliku te booba njàpp ma jeexagul maam ni yàggagut kon bu boobaa day wàññiku def cër ba te lam jotoon a def gannaaw bay da koy defaat day wàññiku def cër ba te lam jotoon a def gannaaw cër booba it da koy defaat euh, ñu jox la misaal moom daf doon jàpp ba raxasee loxo saraxandiku fiiru raxas xar kanam Bam raxase xar kanam daa di dem nag massa bopp xam nga jël na kon waaw ah, bam raxase xar kanam dafa dem massa bopp kon xam nga jël na loxo ya wala sax mo la raxas benn loxo jor ba dem massa bopp jël loxo càmmoñ ba bam bay massa nopp wala muy raxas tànk daa di fàttaliku ne ah man kat sama loxo yi raxasuma ko mooy gannaaw ba ma raxasee bopp sama raxasee xar laa bëgg wax sama loxo yi dama ko jël wala sama loxo bi kon dañ naan ko bàyyi fa tànkee nga doon raxas nga dëppaat dem raxas loxo ya ndax raxasoo ko woon da nga ko jël boo ko raxasee te xam nga masaawoon nga bopp du tee da ngay masaawaat bopp masaawoon nga nopp du da ngay masaawaat nopp demaat ca tànkee ya raxasaat ko waaw maanaam kon bu dee da nga fàtte ëpp cër te cër ba nekk farata boo ko te fekk boobu njàpp mi jeexagul danga koy def moom cër ba doo ca yem waaye la nga jotoon a def gannaaw ba it da nga koy baamuwaat waaw comme ni ma la ko misaale noonu rek. way ñekku neem dafa nekk nag di ko fàttaliku bu mu baax di tuuli zamani ci gannaaw yàggug jamono fa xala woon na ko def bi niyetin ànd ak yéene fal tànta ni naa sonn laakin war na ko ay yoxi mu baabu maa la nga xam ne sallaa julli woon nekk min xable yi ci ak njëkkam li toxrin ngirug laab dimaa goog ñàkk ñàkkeef na ko nee na nag bu dee ne dafa yàgg bu dee ne dafa yàgg maanaam dafa jël ab cër dégg nga te cër ba nekk cëru farata mu toog ba mu yàgg doo ko fàttali ko ne ah man kat ba may jàpp ndekete am na cër bu ma bàyyi woon nee kon bu boobaa day dem def cër ba cër boobee mu bàyyi woon moom dong lay raxas du jar muy raxas la ca topp waaye nag da koy yéene waaw day yéene mottali farata waaw ndax xam nga njàppam ma matutoon dafa jëlli cëru farata kon bu bu bu yàggee mu fàttali ko kon bu boobaa day ànd ak yéene dem raxas rek cër booba rek yéene mottali farata ji dégg nga waaye nag bu fekkoon mu julli julli ga koy baamu ndax njàpp moom jàppoon pour julli njàpp mooma ndekete matutoon waaw ba muy julli ndekete amutoonuk laab ñu misaal la ko moom dafa jàpp ba pare dem di julli bam mu demee bay julli gis ne ah man kat sama loxo yi ba sama sama cionc yi ndek dara xassuma ko mi ngi wo ko mu nag xana dama ko jël de kon ba may julli ba may japp mu leer ko nek kon da ko jël raxassu kon bu boba day dag julli ga denga bu daggi julli ga bu deme loxo yi dong lay raxas waye day yene mottali farata ja raxas loxo yi rek ba ca concee waye du jar muy masaawaat bop di masaa nopp di raxasaat tank lolou du ko jar ganna ba yagal ciir rek lay raxas waaye julli gam julli woon it daf koy baamuwaat daf koy julliwaat waaw wala julli gam nekkoon ba dagg ko sax ndax ci biir bu dee dama laa joxoon exemple ne la ci biir julli ga la ko fàttali ko kon julli googee bu ñëwee daf koy tàmbaliwaat bu fekkoon mu julli ba pare it da koy julliwaat waaw wa interact tarakta nem nga sunnatan sunna ya rajul ya way fatina na nga dikk bihaa ci mom li ajli ma ngir la nga xamni yustaqbal def nako djublu jublu nak wala tuhidu bul ba ma la nga xamni mada weena wa faataate mu fat li bayi ngir naka mom bàyyi sunna la yubtulu du yaq salata julli nen nak budé dafa bàyyi ab sunna ab sunna xam nga kon am doon wax ab farata la la ci ru farata ki nak mom ab sunna ru sunna la lu melni ni ndiku lu melni fiiru lu melni ni sarax ndiku lu melni massa nopp lu melni massa bopp dem dikk ba lu melni ni masa bopp dikk ba sunna la bayyi dal neena koku mom moom ko fatli ko it mën dem defi mom sunna ba dégg nga waaye nag du jar muy baamu lam julli won ndax bayyi ben sunna neena na yaqtu julli wa masalan tay mom daf doon japp bi muy jàpp fàttee ndiku ba loxo dafa euh, euh, fiiru sarax ndiku fiiru waaw mu mu fàttee nag euh, gàllax mu julli ba pare fàttali ko ne ah man kat ba may jàpp ndeketi gàllax ndiku wu dama koo jël léegi kon boo dañ naan ko demal nga gàllax ngir boo bëggee julliwaat julli ga mat maanaam jàpp ma gën a mat waaye la nga julli woon moom du jar nga di ko baamu ndax bàyyi sunna bokkut ak bàyyi farata bu doon a farata la moom gis nga ne dañu woon na ko wat mais bu dee ab sunna du jar mu di ko baamuwaat loola du yàq julli ga hmm. digal gi ñu koy digal sax mu dem ja mu dem gàllandiku mu dem defil cër ba mu bàyyi woon te ab na mooy ne rek bu bëggee defaat ak julli wala yu demee noonu hmm. wa in nasiita nem fàtte nga lum xatan ak digg mi minal badani ci yaram wa fa faxsilha nanga ko raxas wax daa moom rek bi niyetin ànd ak yéen isan boobee su maalayka topp war na la it an ton yi da nga baamu kullama loo xam ne sallaytahu julli woon nga ko min qabli xaslin ci njëkk ak raxas xutima gog wara leef na ko bu dee ne yow bàyyiwoo ak cër déedéet moom ak diggante la bàyyi dafa am ci cëri farata yi da ca am diggante boo xam ne tooyut waaw dafa am diggante boo xam ne tooyut ndox ma yeggut fa waaw moom def na bu ko dëkkalee lam la njëkkoon wax lam la njëkkoon wax moom ab cër la bàyyi nga xam ne loxo ci boppam la raxasut tey nag moom raxas na loxo bi waaye jëmmi loxo bi dafay am dafa am bërëb boo xam ne ab diggante boo xam ne espace boo xam ne tooyut voilà maanaam ndox ma yeggu fa raxasu ko mu fàttaliku ko gannaaw ba mu jullee ba pare kon dañ naan ko demal nga raxas diggante boobee nga xam ne moom nga bàyyi mooy espace boobee nga bàyyi moo xar xam ci xar kanam la moo xam ci loxo la moo xam ci euh, tànk la wala ci farata yi cër boobee a diggante boobee mu bàyyi rek ndax moom def na cër bi waaye da ca am espace ci cër bi boo xam ne ndox ma ndekete yëgu fa cër booba maanaam espace booba rek lay lay raxas waaye day ànd ak yéene mooy maanaam mooy yéene mottali njàpp mi ndax ma njàpp mi matutoon te it lam julli woon it daf koy baamuwaat ndax diggante boobee mu bàyyi ci cëru farata la nekk kon raxas ko farata la kon moo tax la nga xam ne moom la julli woon it daf koy baamuwaat. ngi lay ñaan nga abonné nii rek nga koy defee mooy noonu ngay seen noonu.